amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga ame amee yit wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kot wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am téléphone yii bi muy 78 397 65 93 78 397 65 93. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221. di nuyu sunu kilifa diine yi di nuyu sunu kilifa aada yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi sunu borom doole jàmm. amiin waay di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi yàlla na leen yàlla may liberté ba ñu delluwaat seen njaboot. di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla da leen a yërëm euh, yàlla da leen jël ci coobareem yàlla da leen yàlla yërëm te jégal leen tey nag maa ngi fi Medina Medina nag su ma fi ñëwee seet si 10 000 problème 10 000 problème nag li tax moom kër gi ma ni moom archive la fi keroog bi ñuy jox sunu trophée ci moom lañ ko wàccee émission boobu ci moom lañ ko tourné yaakaar naa moo jël trophée bi def ci ay ñaan ba tey alhamdulilah ñuy góorgóorlu donc tey bu waxee ci fii rek. c'est normal waag waag. Mhm. mais bëggee naa la. waag waan waa salaamaaleykum. di bëggee di la bëggee tamit. nekk première fois nga fi ñëw wala deuxième fois. dëgg la yàgg nañu quoi di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla tamit xool sénégalais di la bëggee tamit quoi. dëgg la waag waan famille. d'accord rek am na solo. Ah, waag fan yi ñu gis réseaux sociaux yi yàqante bi weerante bi wilipaane bi en tant que ngay porteur de voix naka nga jàngatee loolu. waaw loolu moom wax dëgg yàlla bàyyi garaaw trop ngay gis gars yi wér da ngay nekk nit sax ndeysaan xam nga nga nekk nit pendant ay vingt ans. ba mais xëy suba rek nga jël benn waa mais image am di ko publier quoi. maa ngi dégg maa ma saa jamono di si dox ay dox quoi foo faut tamit état tamit dimbaluñu si boobu côté quoi ñu yooyu bu ñu ko defee ne état dal seen kaw quoi ndax mënu ma xëy suba rek wa jël vidéo jàmbur rek daal di koy publier. mën moo xëy suba di xool filmer doomu jàmbur ak ay xuuram daal di koy publier mën nga fekk sa yaay di puub sax nga vidéo ko xool wate publier ndax pour lan pour créer benn vie à travers l' internet kere créer benn buzz amul sens quoi waagwaan raññita <laughs> waaw ñun ñun ñëpp ay Sénégalais lañ quoi ñoo bokk quoi mais xool la kaari Kouthia ak Amina ah? ak li ñuy wax sawaay yooyu noonu naan ay affaire de jaakaru puub ak c'est que mois bi mois góor jigéen la weer bi seen weer la moo tax weer wi il faut moom ay événement yoo xam ne day indi ay tension mais ñun xool talanu leen sax quoi ndax bu ñu jógee Sénégal laa gis bu ñu jógee si coow dal si coow bee wate def nañ ko Sonko ak i Sarr beneen gaan ñëwaat xaw ma kan ak kan ak benn boy bu mu tëddee man daal moom problème mu taat moo sonnal nday nit ñi wala problème mu xaañ wala problème mu xuur wala mu tubéy quoi gars yi ñoo xooñ wala gaa yi ñoo am nday problème man. d'accord yaa ngi koy wax léegi ñu ngi nekk ci benn mois boo xamante ni euh, sénégalais yu bari tamit gis nañ ni mooy moment bi nga xamante ni moom lañ jagleel ñaari tur yi. non da naan weeru góor jigéen ñi la waaw weeru góor jigéen seen weer la quoi seen weer la. yàlla na leen topp ñoom. voilà ñu nemmeeku ci fan yi ay coow euh, am na ci benn artiste boo xam ne sax daanaka génnee na ay ay dàll ba mu jur ay polémique yu bari quoi. non xam nga ni ku nekk tamit li ma gëm ah, mooy li nga nekk mu la may munin bul daw ni yow bokkoo si lobby bii yaa ngi dégg lu baax man du ma toppandoo comme gars yi di wax ne nan ay ay affaire Wally Wally Seck mooy géem loolu ñun wax nan ko waxaat ko duñ si daraat quoi moom si lobby boobu noonu mu nekk ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñu si lobby yi. loo foo gars yi ñu si franc-maçon yi góor jigéen ñaa ñoo leen may munin ndax ñoor million yi. te pourtant moom taxaw na ni bokk ci. non amul bokk ci quoi tamit da ngay xool xam ne lii lii la quoi mais àdduna nag ku nekk ak lu jaral. ba mais boo xalaatee nag dee di am loo xaat boo xalaatul nag dee defal lu la neex yàlla moo ko wax si la woon zanna hadal Qur'an nee na nadribuha li naasi la'allakum yatafakkarun dinaa mbugg ñu bari parce que dañ ma fàtte temps bi nag lu waay neex def lu waay neex def lu waay neex wax mais mais gis nga réseaux sociaux yi ak seen affaire kaay yi topp ni topp kaa. di fay ay nit ñuy saaga nday nit ñi. d'accord. Euh, euh, ba tey damay des ci le cas de Wally Seck euh, sénégalais tamit def benn jàngat que ni souvent coow yooyu buy am boo xoolee yëre yi fi amoon concert yi ba ci bi amoon day tombeek ci weer bi nii yow mi nga xamante ne yaa nekk ci biir hip hop bi di ko dund bëgg naa nga nil ma ci ay leeral. non yooyu koy amu si lu ma si leeral quoi li ma si doon leeral ah wax naa ko bu yàgg waxaat man bu ma leen wax naan ay ñii lii na ñii lii nanu te mënuñu si dara parce que fii pays laïcité la du pays charia comme mu neex nga wax loolu neex mu ngi sa amee adduna bi gars yi si internet bi lu leen neex wax jàpp ay sëriñ di collage affiche taxaw di saaga ay nit. weta kalan bii di saaga ñii ñii di saaga ay kilifa waaw ban àdduna noonu ne man yenni xaalis moom ma ko jarul. ndax jàppoo ne artistes yi dañ ko def mode rek comme génnew no parce que dañu xonet non dañ ko non dañ ko defuñu ko pour sañse danoo xonet di ko def. mu nekk seen job ñuy nekk si ay lobby yaa xam nga nekk si lobby franc-maçonnique mbaa xam nga nekk si lobby xoolal góor jigéen ñoom ñoo lay financé ñoom ñoo lay solal ñoo lay choisir loolu li ngay sol yow doo tànn de dan naan la solal lii négocier Ouzin Keita Keita bu mu demee kaa moo yëre woo mu sol mel na njugub amee xamuñu yére la xamuñu mbàjj la c'est que dañu war a nekk ndayu nit nit xam nga li gën a garaaw mooy di dof dof lu te war a nekk nit dañu war a nekk nit ñu bàyyi dof dof la bi ñuy dof non mais am na ñu leen ñu rey nag quoi mooy dof yeeg ngaa koy ñoom mën na leen suivre quoi parce que xam nañ lu xew quoi mais ñun xam nañ lu xew quoi. d' accord waaw dara waaxuñu quoi. d' ku ci tey ba tey damay def si waale euh, ak coow li nga xam ne jotoon na fee jaar ak ak yi amoon euh, est ce que tamit moom euh, jaadu woon na tamit muy jëlaat yenn yére yi donte def ko sol rek comme li mu wax ni star la dama mën a sañse est ce que tamit xalaatoon na li passé avant muy sol yooyu. xam nga xam nga Wally Seck quoi quoi. magum jëm man leen rek moom a nekk moom quoi ak lu mën a mel mais moom day partagé ndax gis naa muy dimbali ay nit day dem wuti alalam dem àdduna na c'est comme ça boo nekkee si dara moom di nga dégg lu nekk man am lu ma koy wax moom amul lu ma koy wax man li ma doon wax Wally Seck wax naa ko ko pare naa su quoi magum jëm la xam na lu muy def quoi. jàppoon na nga si ay concert ñu génn fa lii demaat li demaat lii ñun nag mënuñu lu dul d'annoncer mais mënuñu wax loo xam ne suba dañuy indi ay problème du ko def. <laughs> dix mille da ngay ragal. da ngay ragal tabaskee ji. non non man fu ma tabaskee baax na mais c'est xam li gën a bon si àddina mooy sosol nit. weta Sénégal loolu daf fi bare dañuy dañuy ah, euh, benn occasion day am sax ñu profité aussi di dugal nit. mais xoolal Kaaw Kouthia ak Amina Poté bi xoolal ay vocal yoo xam ne ay. te ay mille huit cent la mille neuf cent nga génn vocal ba di ba deux mille ay ay deux mille vingt trois bi ngay génn ay chiffres yoo xam ne yaa kii yéen a ko seqoon lu yàgg da ngay am sa jëkkër sax wala sa jabar nga enregistré benn vocal di xaar bay at nga xëy suba daal di koy publier ban sens ban njëriñ la am weerante boobu ba kañ sànnante xeer boobu ba kañ. bi nga dégloo audio Kouthia yi waaw ma dama ko dégg mais daf ma dama rusan vraiment waaw parce que dégg naa muy wax loolu kenn du ko wax quoi xam nga tamit ak waa ji gaañu noonu muy wax kooku danga koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm taxawal ko àjjana. ku dee waratoo wax si moom lu bon wala lu ñaaw quoi ñun dafa am nu nu yere quoi dafa am nu nu jànge tamit quoi mais gëmoo nit faatu nga nekk si gànnaam di wax lu ñaaw. da ngay xaat sa bopp yow boo dee lu lay seedeel quoi. d'accord ah. euh, ñu gis euh, kii nga xamante ni mooy Imam Matar di Jamra souvent bu ay coow di amee wala ay audio wala ay wax lu ñaaw day génn démentir wax ah ñu gis la cas de Wally moom mu ni def ci neutre ah dugalul plainte en tant que waa Jamra aussi tamit est-ce que loolu seen taxawaay la. non moom foofu non foofu moom buy dugal plainte xam si lan lay dugal plainte manqué dégg nag li muy wax noonu nice quoi parce que. mu ngi wax ak ñi jël audio jàmbur yi di ko partagé mu ngi wax ñi filmer nit ñi di ko publier moom si ñoo ngi la doon wax man déggu naa ko bu baax a baax muy def la point de presse am nice quoi je suis très content quoi mais affaire de Wally boobu noonu affaire de lobby la. Wally Seck nag moo war a génn mu mu wax sénégalais ni leen man de lii laay def mu fin quoi. Ah, d'accord kon dafa bokk ci ay lobby. waaw moom si li mu bokk mu ni man de si lii laa bokk quoi. adduna bi yaatu na ñu fi nekk bari na bàyyi ku nekk am nga foo bokk. ça le problème moom moo war a libéré nit ñi mu jeex quoi ndax li am na fi amaat fi euh, euh, ndax jàppoon ni tamit coow LGBT yi xam nga wax yooyu noonu lañ ci bëgg moo tax souvent ñoom ñi bëgg di créer yi man affaire góor jigéen ñi booy bi ma koy kalaate fii gars sama compte lan ko lan njëkk coupé man bi may kaas si affaire jaaykatu bi maanaam si góor jigéen ñi man képp kii góor jigéen fokk yu ñoom ñëpp laa si yemale. amul mbalaxmaan bi amul rappeur bi amul na nekk man nekkal kanaara fokk yu li ma si doon wax wax naa ko kon taal naa fi ndey drapeau góor jigéen fii mais gars yi sama compte la ñu dagg la ñu coupé takk ñoo moom bi ñoo siiw ñoo am doole ñoom ñoo moom adduna quoi ñu duñ ko xëccoo ñoom quoi. parce nga ko dénoncé maa ngi fàttali benn image boo xamante ne ci classe mu mel ni lobby bi dafa dem ba dafa dafa am doole ba kenn kenn. dëkk bi dëkk bi si waxam bu bëggee dégg dëgg moo bëri ay góor jigéen boobu ay góor jigéen yu bees ay góor jigéen yu ndaw ay góor jigéen yu màggat ay kanaara boog góor jigéen yi en pagaille waaw. d'accord dëkk bu mel ni Sénégal kilifa yi fi tëdd ndax mérité na loolu. no fii moom moom temps bi moom changé na moom waaw ñun moom mérité wuñ loolu ko mais léegi jikko yaa ngi changé nit ñaa ngi soppaliku bëgg dugal si maa ñu nit ñi beneen dund boo xamante ni arrangé wuñu quoi xam nga jàmm Baye Fall dafa neex te balaa nga xam ne jàmm dafa neex yow nga am problème nga xool ba nu jàppale si kaso bi. mbaa nga nekk si problème ba gars yi téye di la dëggaate wala ñu ñu xool wala nga la ba gars yi kepp la si ngay xam nag lan mooy problème boo fa gënee da nga tóob le temps ngay def loolu nag ndax fee boo fa demee xool boobu ndaw mu naan la eh damay jaaraan day da nga def. d' accord ah. moo ci seen taxawaay ñu dénoncé ba pare artistes nekk benn quoi waa solidarité euh, pourtant boo jàppee benn enseignant enseignant dañuy dig saa rek ñoom ñu génn kaas ñu libéré ko. mais tey ñaata rappeur nekk jël ñaata rappeur ñoo nekk si kase bi Pape Alé Niang bàyyi nañ ko fi ki nekk ko wal fajiri journaliste yi ñoo si jàpp sax wala Pape Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko masso moom génn na quoi sama nit la moom. ba mais xam naa naa def émission bi sax moom libéré nañ ko mais rappeurs yi nekk si kaso bi ñoom lu tax duñ leen libéré. ñu dem tabaski seen kër yi quoi ndax li ñu doon kaas xëy na ay jumtale mais nanu Macky Sall laay demandé na euh, libérer les artistes nga bàyyi nu ñibbi seen kër. d' accord en tant que nañ la proposé comme xeetu lobby yi ak yenn abima yi. non mos nañu ko proposer si voyage quoi si voyage mais waa ji mu ne ko Italie la. mais kooku dama ne ko dama ne ko da nga may envoyé sa compte xam nga ni que bu la envoyé compte boo duggee si compte man laa gis ay xeetu nit ñoo xam ne xam naa ne ñii dem fa arrangé wu noonu laa fa man mën nañ ma jàppale fii Sénégal li gars yi am yëpp mën naa ko am. barke yàlla mais xëy na li may wax moo leen neexul wala li may dénoncé ñoom laay laal moo tax ñu aju. Mhm. mais yàlla nga fépp. Mhm. d' accord ma ñëw ci coow li ah muy le kaaru Kouthia yaa ngi ko doon wax léegi yenn influenceurs yi nga xamante ne ñooy nekk ci kaw xam nga di influencer ndaw ñi ba tey boo xëyee amoo kaa sax da nga jàpp ni amul la neex yàqante bi. gars yi dañuy gars yi daal seen portable lañ yor seen connexion ah ak seen ay kóol yu leer nag lu nu seetaan baa daanaka xoolal fu nu gisee kaa topp kaa woowu. te weerante boobu noonu moo tax tant que état amul lu mu teg si ñooñu ñoom duñ ko bàyyi su fekkoon waa ku publier xool vidéo jàmm nu jàpp sa ndey coow day jeex tak mais lu waay neex publier lu waaye neex publier information boo xam da nga koy jàllale sax di jaxas di duul di jaxas ay nit. ñii di def ay loolu moo tax yenn journalistes sax ñoom amee ñenn ñi bokk du ñëpp de am xam ne ñoom loolu na ñuy def ko wa ñii nekk fële di def seen live di influencer nit ñi di jaxase le peuple sénégalais police bi ay dem leen taal fi dem leen ngeen yàq dem leen ngeen bakkañ parce que tamit yàgg nañu gis ay ay ay ay yoo xam ne xam nga dañuy génne ay awra jàmbur di wilipaane nit ñi ci réseaux sociaux yi mooy yenn influenceurs yi nekk ci kaw souvent di def ay live. waaw parce que ñu nekk fii ñooy complexé rek xam nga ba nga ba ngay xool ku def live am mu taxaw yow mënoo nekk ndey Europe di lekk sa lekk bu neex di def lu la neex di xëy di joob di ko say weer ñun si amuñu sax sa leer bay am journée teewul ñu ngi sant yàlla. waaw da nga war a dugal suñu xel yi ñu gëm yàlla parce que am na lu ñu gëm muy El malek Malick muy Mawlana Cheikh al Islam muy Cheikh Oumar Foutiyou Tall Baye Laye Cheikh Tidiane am na ñoo xam ne ñun ñun ñooñu la ñuy roy muy l'islam parce que inna diina inda l'islam mais ma doon nekk fee nag du ma influencé ma lay déglu man xam nga kan lay déglu ki nekk Sénégal fii ak ku may gis doo nekk Kaaba naam yow ñoo ñu taal kaay ñu xeex boo bëggee raak da ngay ñëw ñu xeex mais doo nekk fee di. mais ñaata ñu defu gaañu si si élection yi ñaata booy nañ fi jëm ay bal fetal yee ay Sénégalais yi xeex leen waaye di xam nga seytaane xam xamoo nit ki du nga ko bañ ba mujj sax du nga ko mujj bëgg naa fekk baaxul nanu bàyyi jaxase nanu bàyyi booy ni seen financé nekk kaw bu di ku ne yor sa làmmiñ di duul di lu waaye neex wax mais àdduna lu mu yàgg yàgg yàgg waaw mais bant lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg xool si ndox wallahi du mos a nekk jën wallahi di ngeen ñibbisi. d'accord euh, le cas de Kouthia ñu déglu ko mu soxnaam la woon tey mu xëy wilipaane ko est-ce que tey wóolante dina amati entre ci nit ñi. non wóolante ma amul fenn ba Sénégal moom muy man muy yow muy keneen fii gars yi dañuy wax rek yow sa koñ sax mu nga fa sa koñ bi nga juddoo yara fa sax ah mais police xool bu lay jël si dugg xool kenn ko génn di def intervention sa koñ laay commentaire yow bu ñu lay jàpp di la monter di la génn. waaw mais kenn du ñu taxaw naan gaañ. police doo ko baal ah. jàpp si doo ko dégg. ñu ngi nii la taxawee. ba mais ndagam dëj jaam dëj dëj yi di jàpp néew bi di ko filmer di ko publier di esthétique gars yi bu ñu suri sax léegi dañuy mel ne ay cascadeur daan xeex di tuuj di ak xoolal di benn benn dañuy dem benn noos ñii di snap Sénégal daal bàyyi fii wax naa leen bu yàgg fii dëkku ceddoo la dañuy wax nii rek mais tubaab bi sax ñoo leen gën a bon influenceurs yi yàq ndey dëkk bi lu waay neex wax. wetu ku jóg am sa compte bu sa compte bu amee doole rek ayca nga ni star nga di xatal di caga nekk benn góojeen di màcc ay tuñ da ngay dugg benn live boo xam sax ay live góojeen ngay gis ay live xam ne ñii duñu ay góor màcc ay tuñ mel na ay dëmm doome xaram yi xonk du xooleekook koog mel ay caga nan nekk ndayu ay nit nekk ay góor yàlla doon ay bayfal. Yeah. d'accord euh, lan nga ñu mën a seereel ci Kouthia parce que yaa ngi wax ni dëkkoon nga ñaam fii. mooy jàmm. te comédien la xëy na la def bi muy wax loolu erreur la quoi noonu la ko jàppee bugguma kam jël euh, euh, di yokk ay coow. waaw parce que ku Kouthia dama koy ñaanal yàlla sama waay la sama nit la. Euh, te yaay boobu tamit sunu jigéen la sunu yaay la nanu xam ne ñun jigéen moo nu jur nanu xam ne sunu ay soxna tamit ay jigéen lañu booy réew mi ñëpp a ko bokk fi kenn gënul kenn. weerante boobu mën na ñàkk quoi lépp da nga ko waxtaanee mais am na fu fu muy yegg rek yoon mooy def yoonam te yoon bu defee yoon après ngay wër di ñaanaatu yoon te yoon du la may ndax amoo yoon voilà de. bay ci biir wax maa ngi la dégg euh, nga ni daanaka boo xoolee euh, li ku caa doon wax daanaka dafa am parce que li mu doon wax ñu ci télévision yeeg ñu ne ci série ñoom ñëpp a lu leer lu leer la wax lu leer la wax mais milieu showbiz bi noonu la am gars yi si télé yeeg journaliste ñoom seen biir ah. ñoom seen mbir état bi seen biir presse bi seen biir rapport seen biir mbalaxmaan yi seen biir góor jigéen yi seen biir ak giwin seen biir waaw mais xëy na dafa lu ñu fang rek mais apparemment li fa xew gars yi xam nañ ko ñi koy jël xam nañu ñiy voyagé dem ay Dubaay ak leneen leneen France ak di xaañante gi tamit dafa nu quoi lu waaye def sa bopp quoi mais nanu jox sénégalais bi gëddam ko waaw ñu may nit ñi jàmm quoi. parce que instant bi dañu jëm ay tabaski ñu war a nekk nit ñu xool nu ñuy dimbalee ndax dëkk ñun xoolal boobalee ñu ngi xeex depuis 2000 ñun xoolal trois ans da guerre na nekk xoolal confinement passé ñu daal si leneen. ñu ni nii ñu jàppaat ak ay Sarr ak Sonko indi fi ay problème ba léegi sa Sénégal yi mënuñu am jàmm. nit ñemewul investir sax alalam ndax problème yi ngay gis nii. te ñoom ñëpp lépp ñoo ñu ko yóbbee nan la may jàmm tamit quoi. d'accord waaw am naa mbégte ci dalal la tey sa mot de la fin ak looy tàggatoo. waa di la ñaanal yàlla di la bëggee di wax sénégalais rek di ñaaxat état bi na nanu génn ay et ay waa jox nit ñi dimbal nit ñi xaw muy soraat tamit waa sodaaf yéen ñor artistes yi jox leen artistes yi. ñu war a am ñi lii tamit ñii ngeen dimbale ñii nanu dimbale poobul Sénégal bi nit ki da nga koy dimbali si bu mu amee soxlaam tant du lu jëm feet dëkk bi métti na tant nit ñi ñu ngi xeex kenn xëyul ñu bëri seen alal yàqu na yenn booy ñu ngi xam nga ñii ñu ngi xeex mais ñii ñu ngi dem seen ñu ngi jaal si gaal dem seen noonu dëkk bi moo metti léegi da ngay xool solution yoon yow noo si génnee ah nan respecté Sénégalais yi di ñaanal Sénégalais jam naan la ma xoolal bonne fête bonne année bonne tabaski yàlla yombal lépp si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et puis di leen ñaanal yàlla tamit ah. waaw yow sax waay nga mu ngi noonu ah moom lañ daraloon fii 10 000 problème di leen jox yeneen nit daje ci sunu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf di Serigne Cheikh Konté ñu gën koo xam ci Cheikh borom produit yu baax yi nee naa la nga bëgg ku seetal demal nga seeti Serigne Cheikh Konté yi ñaan dina seet boole si faj ba mu wér waaw waaw lu jafee gis faj ba mu wér laa la wax de déglu ma bu baax mbokk mi ma wax la Cheikh feebar ya muy faj yow mi am jabet bañ ñi la du wér demal nga seeti Cheikh yow mi amee feebaru AVC ba paralysé demal nga seeti Cheikh yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti Cheikh mu tàggale la ak moom yow mi amee prostate demal nga seeti seex nga amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kàttan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am leer mën ngaa jokk jokkoog moom si numéro téléphone yii muy 78 397 65 93 78 397 65 93 Serigne Cheikh Konte ya ngoog nee naa la faj seen aajo mooy li koy teel yow mi tawat dem fu ne bañ ñi la mënuñu laa faj boo seetee seex mu tàggale laa ak sa tawat tàggale la ak sa jàngoro Serigne Cheikh Konte yi nee naa la wàllum faj ak ñaan ak lii di seet yàlla da ko see may